maa ngi leen nuyu yéen ñëpp ku nekk ci turam ak santam di nuyu waa Argentine yëpp di leen ndokkeel yéen ñëpp. bu day rek ñu wax loolu bu ñu bëggoon xam lan mooy sa liggéey fële ci ambassade bi lan la. waaw man maay euh, Abdourahmane Gueye premier secretaire en charge des affaires consulaires des affaires consulaires maanaam lépp lu jëm ci affaire consulaire man lañ ko dénk foofu noonu waaw. sénégalais yi nag dañuy tàmm di wax consul bi consul bi comme amuñu consul en tant que donc kiy def liggéey consulaire bi la sénégalais yi naan consul consul mais fonction bi mooy premier secrétaire chargé des affaires consulaires waaw loolu la loolu la ñëwee tey ci li leen fi indi ngeen daal di wàllu ay yuuxu yoo xam ne bu yàgg ba tey Argentine Brésil di yuuxu wàllum commission passeport mu ñëw dañu gis ni day faral di tardé lu bari bala ñuy muy ñëw li ñuy wax na merci après mort daal di am lu waral loolu. waaw boo fàttalikoo sëñ Gora 2019. juillet juin juillet 2019 amoon na benn mission passeport bu vingt bu 21 jours en Amérique latine dont 7 jours yi fii lañ ko passé en Argentine nit ñi bëri woon nañ torop mun ñu jël lépp maleureusement mais boobu amoon na en 2019 ci li ma fa fekk 2020 mission bi préparé wu na pour ñëw ñu tëj frontières yi donc loolu deful at ci diggante boobu noonu donc mënuma d'accord ak li nga wax day mel ni médecin après la mort ndax euh, chaque fois état Sénégal mi ngi jéem a yokku pas-pas bi ci gestion wu sénégalais de de l'extérieur parce que dañu bokk ci ponk ñeenti ponk diplomatie donc daaw gis ngeen at bi nu mu demee coronavirus moo ñëw frontières yi di tëj notamment yéen fii Argentine dafa tëj ba récemment bañ ko bëggee indiwaat tamit yéen gis ngeen ni premier novembre bi la Argentine door a tijji tijjeeku normalement donc looloo tardé loon mission bi mais mission bi bi mu naree ñëw yàggoon na mais du ma mën a dàkk ak yow ci ci ponk boobu amaana am na ay jamono doon nañ def par deux ans muy ñëw mais boo xoolee 2017 la fi mission gëjoon 2019 mission ñëw fi def 21 jours yaatu jaar Porto Alegre Recife Brasilia São Paulo Buenos Aires. bii nii nii nii nii nii mën nañ ne mission bi li ko taxoon a jóg carrément mooy euh, Buenos Aires mais mënul woon jéggi Brésil xam ngeen Brésil li fa nekk ci doomu Sénégal donc bi ñu ñëwee Brésil dañoo taxaw fi ñuy wax São Paulo taxaw nañ Brasilia parce que agent de police yi dañuy soxla seen visa Argentine donc taxaw nañ fa le temps que ñuy am seen visa dem São Paulo jël fa ñu bëri pour door a ñëw. Euh, Argentine Buenos Aires donc euh, je pense que am na ay efforts yu ñu nekk di def te efforts yi xam naa ni dina gën a jëm kanam ba amaana bés dana ñëw ñu am fi centre de production loolu la ñuy ñaan. dañuy bëgg lu ci gën a yaatu dañu gis ni da ngeen a am problème mu def fi temps bu ngeen ñëwee donte ni da ngeen def mais li ngeen di bàyyi itam day des wala itam da ngeen di yóbbee Sénégalais yi ci coono yu bari. donte ne liñ soxla ci yéen lu néew la mooy ngeen defaral ñu ay passeport mais dañu gis ni da gis nit dafay jóge ci ay état yu sori pour ñëw def loolu lu tey ngeen man fi def temps dem ci fépp Sénégal yi nekk pour defal leen loolu wala itam lan mooy jafe-jafe bi. waaw loolu xam naa ni loolu ñun ñëpp lu ñuy bokk di ñaan sunu autorité yi la ñuy gën a yaatal mission yi man bi mooy sama deuxième mission wu passeport première mission 21 jours la xam nga yëkkati leen ak seen i mallette nii yëpp yombut damay dellu si ginnaaw balaa may ñëwaat ci lii pour effort yi état bi di def ak ambassade bi di ko def mooy bee passé da ngeen gis mission 21 jour benn machine moo ñëwoon bi paa gis ngeen mission wu 15 jours ñaata machine ñoo ñëw. ñaar quand même machine passeport dafa jafe ba lu bari mënul ñëw def li ñu soxla wala. foofu nag du sama domaine. domaine ministère de l' intérieur la. ñàkk dañ xam tuuti. non domaine ministère de lu may wax moom dafa may leer. foofu peut-être bu ngeen gisee ministre de l'intérieur ngeen posé ko question bi. bu ngeen di jóg di ñëw du am xayma boo xam ni moom la Brésil déclaré ne tey dañoo am tel problème sénégalais am passeport Argentine déclaré ko ngeen def xayma bu ngeen ñëwee yéen par jour man ngeen def li ngeen calculer kon defi temps boo xam lépp dana mën a jaar yoon. Ah, xam nga mission wu état dañ koy préparer sur une longue durée ki dem mission mënul dépasser vingt et un jours benn ñaar. ñoom bu ñu ñëwee da ngeen di gis à chaque fois ba ban heure la ñuy liggéey mais tamit benn affaire il faut ñu wax ko tam moo nekk ci ñun organisation bi association yi war a organiser woo ba organiser ko mu normal ak sénégalais yi yar giñ ci war a àndal ba jàppale organisateurs yi ba lépp normal des fois du ci am. non ci organisation bi par rapport li ma fekk Argentine par rapport ak li ma fi fekkoon 2019 lu bëri dafa changé am na lu bëri changé na organisation bi am na ay pas yu ci yokk mais bu may wax beneen fànn organisation bi mooy sénégalais yi ñëw defar si passeport souvent ñenn ñi dañuy toog fële ñuy tardeel rang bi ñëw teg jël sa numéro dem sa numéro ñu passé nga fexe ba duggaat ñii di liggéey chaque jour ba 23 heures. sànq dégg naa laay bamba na laa ba vingt deux heures mais liggéey nañ fi ba vingt trois heures tegle ko ñaata fan ñoom ñuy jël rek parce que dem nañ ba naan ñoom dañoo jóge fu sori garaawul comme ñëw nañ ba fii d'autant nañ jël rek mais tam ay nit lañ dañuy sonn bu ñu defee lu mel noonu Sao Paulo def lu mel noonu fii nga def ko ci fukki fan nit kese nga dafa soxla dafa soxla récupérer des fois erreur yi da ji mooy tax erreur yi des fois di am wala leneen ak leneen mais sénégalais buñ ni tey gis nga ñaata nit ñoo ñëw fee pourtant bi ñuy door a commencé dëgg la am na ñu jóge fu sori ñëw nañ fanaan si biñ gisee loolu bi ñu ko waxee dañoo jóge aéroport wàcc si setup bi installé machine yi tëj ko sécuriser ko door a dellu hôtel xëyaat huit heures ñu commencé ba vingt deux heures vingt trois loolu mooy ñun xam nañ sunu sacerdoce dañoo opté benn liggéey pour def ko ambassade bi yónni ay nit nit yooyu jóge ba dakaar tamit ñi ñu yónni ñoom xam nañ lan mooy seen liggéey déjà da ngay xool ni fonctionnaire yee ne dañooy passé seeni heure souvent pour lan mën a jël mbokk sénégalais yi fi nekk di leen jël carrément mais tamit ñun suñu biir ñun ñoo war a xool nan la ñuy organiser ci li ngay wax gars yi nañuy xayma ñan ñooy dem ñaata mënoo ko xayma da ngay xayma soit ñi seen passeport jeex wala ñu ñu seen passeport jeexu mais maanaam tey Sao Paulo ñoom waa groupe passeport boobu ñoom defoon nañ benn xayma envoyé ambassade bi trois cent et quelques personnes ne ñii dañoo soxla passeport mais foofu yemuñu ci trois cent yooyu ëpp na ko parce que waaw ëpp na ko mënuma la jox chiffre exact mais ëpp na ko lu bëri di dem parce que munoo xayma da ngay ñëw kenn ne la démb réeral naa sama passeport ñeneen ne la non dese na ma un an parce que ñoom bu ñëwee ba fii ñi dese ba un an dañ leen di renouveler ñooñ ñëpp munoo leen xayma te en plus il faut sa diir nag une fii sénégalais yi peut-être léegi dinañ jël en compte ni bëri nañ sénégalais mais bu njëkk ñi fi doon dugg yëpp duñu génne yow xam nga ci loolu génnewuñu aéroport Dakar yoruñu woon passeport sénégalais feneen lañ doon jaaree. noonu nan nga ko mën a xaymaa flux boobu aéroport bi jëlu ko nanga ko mën a xaymaa mais léegi li xew actualité wane na ni Amérique latine bëri na sénégalais surtout Brésil ak Argentine ba ci léegi gis nañ ni Chili Uruguay ah, ba Pérou Venezuela aussi am na ay sénégalais ñooñ ñëpp bu nekkee foofu noonu léegi état bi mu ngi ciy jël en di def ay jéego di def ay jéego. pour côté passeport ak gestion des sénégalais yi noonu côté boobu ñu ngi ciy avancé je pense que loolu laa ci mënoon wax pour le moment. xam naa def ngeen ay fan Brésil mën nañoo am xaymu ci ñaata nit ñoom ngeen fa taxaw ci wàllu passeport. waaw Brésil moom mën naa jàpp ni environ ay cinq 500 enrôlement yooyu noonu jël nañ ko Sao Paulo bokkut ak euh, la ñu jël euh, Brasilia. Brasilia xam naa ni bu yemee ci ay deux cent ci la yem waaw ca la yem ci mais fii nii mënaguma xayma parce que wax dëgg neex yàlla gars yi bu ñu wàccee amuñu temps sax compter dañuy takk lépp teg ko xaar ba dellusi si. loolu man mënu ma wax loolu de mënu ma wax ñi amoon jafe-jafe passeport yëpp man kii non ñun bañ fay jóge bàyyiwuñ fa kenn deux derniers jours yi sax presque kenn ñëwul ay benn benn nga doon defar. mais mënuma nag ne ña amoon jafe-jafe passeport parce que ku amul kayit yu mot doo mën a enrôlé wu ku toog ba mu ba mission ba dem nga ñëw fekk mission ba dem na doo enrôlé wu ça dépend am na yeneen paramètres am na ñu bëri tamit te di ñaax suñu mbokk yi dañ fi toog yoratuñu kayit yoratuñu dara bu commission ñëwatee fii di defar carte d'identité nañu dem wuti seen i extrait de naissance denc ko xaar commission ñëw ñu enrôlé leen ñu am carte d'identité parce que ñu bëri fii dañ ko seetlu dañu yor carte d'identité yu yàgg yàgg passeport yu vert yi kenn mënatu leen enrôler noonu il faut ñu identifier waat leen loolu yéen ñi xam naa di ngeen ñu ci jàppale ak ñu ci mel ni ñoom laay bàmba ñu jéem a xool nan la ñuy sensibiliser nit ñi tamit ñu farataal kayit yooyu waaw. loolu naa dañuy def ci loo xam ne rek joow Sénégal dañ koy jooy ba tey jii bari na am jafe-jafeem ci Argentine peso la ñu am te dañu gis ni bu ngeen ñëwee yéen da ngeen ñu obligé laaj xaalisu Brésil ba da leen di jural ay coono. waaw waaw effectivement gars yi bu ñëwee dañuy laaj euh, reais te Argentine peso la am xam nañ ne xaalis bi daanu na mais loolu du suñu coobare ambassade bi mooy fonctionner ak reais loolu peut-être dinañ ko boole suñu rapport jooytu ko autorité yi parce que ambassade bi moom kontam fi mu logé wu Brasilia la Brésil la logé wu reyaas la ñuy compter te ñu ambassade bi moom xaalis bi muy liggéeyee reyaas la loolu moom dinañ ci bàyyi xel wax ko nit ñi wax ko autorités yi xool lan lan lañ ci mën a def lan lañ ci mën a def loolu moom j'avoue que nit day ñëw ba fii ne moom yorul reyaal ñuy dem wuti di def change cambio bi affaire yooyu day soof na wax dëgg neex yàlla parce que maa ngi fi woon nekk ak gars yi boobu ba léegi wax dëgg na yàlla gis naa gis naa. kilifa sax yu jooyoon jëmale ci suñu gouvernement bi pour que ñu am ay machine fii boo xam ni itam bu ñu soxlaatee passeport du jar ñuy euh, woo ab commission bureau bi loolu itam ndax yéen jot li ngeen ko wala itam ci sa xayma ak sa xalaat jàpp nga ni yàggatul dana ko mënuma la ne yàggatul wala dana yàgg waaye ambassade bi fii nii def nañ ci jéego yu bari bind nañ ñañu war a bind ñu ngi xaar seeni réponse mën nañ ci am yaakaar nag mën nañ ci am yaakaar parce que Amérique latine bi fii ci ambassade bi nekk Brésil li mu géré ci ay sénégalais bëri na te yaakaar naa ni autorités yi ils sont sensibles xam nañ li fi nekk léegi te ambassade bi jox dox na ci ay jéego donc je pense que loolu noonu mën nañ ci am yaakaar mënuma la àppal parce que nekkul man maay dogal mais dox nañ ci ay jéego. dox nañ ci ay jéego loolu moom dox nañ ci ay jéego te autorités yi dégg nañ ko xam naa ni bu jotee rek ñoom danañ ko saafara incha allah. tey la seen bis bu mujj ci liggéey bi fii ci Argentine bi ñu laaj chiffre bi léegi toll na ci deux cent vingt fan yi ngeen génn daanaka gën nga bari cent cinquante ngeen di defar ñoom nag nee na ñu ngi leen di ñaan pour ngeen yokk heure bi ngir terminer lépp loolu itam. waa chiffre yi deux cent vingt yi ñuy wax ak yooyu peut-être chiffre journalier bi la. li ñu def ci benn bis mais même 150 yi ñu doon wax chaque jour la ñuy jël c'était pour limiter pour mu bañ a am mais organisateurs yi xam nañ ni ëpp na 150 parce que à chaque fois bu ñu nee 150 dinañ respecter cinquante bi mais bu ñu ko heure bi mayee tamit ak local bi ñu nekk bu ñu mayee loolu dañuy romb cent 150 yi mais le seul euh, leneen li ci am mooy cent 150 yi ñuy wax noonu. mooy boolewuñ ci les femmes les enfants les personnes du troisième âge te te dañuy ñëw rek jàll dañuy ñëw dem naa ba benn instant dañ leen ne non femmes yi bu duñ defati ku ñëw rek jàll na ñëw toog xaar bu ñaar ñi nekk ci rang bi jàllee benn femme jàll noonu lañ ko doon mujj defee donc dépassé na largement les cent cinquante par jour yi ñuy wax dépassé na ko largement tey yaa ngi ñëw ñu naan la ñu ngi ay deux cent vingt xaw ma tey boo xoolee jour yëpp liñ fi def nii man je pense que dépassé na six cent six cent enrôlement yi dépassé na ko mënuma nag joxe chiffre bu exact parce que il faut ñu pare ba wàññiwaat yii nii parce que yu tey ñoom wàññiwuñ ko ñii dañuy estimer rek mais yaakaar naa ni war na jege six cent yi mbaa mu ëpp ko. waaw ci lu yàggul ñu daal di gis euh, ci euh, mën naa ko def décret bu daal di génn ci njiitu réew mi jëm ci ni passeport yi léegi ku renouvelé dañ lay yokkal ba fukki at. yii nii da ciy bokk. <laughs> non yi bokk ci de est-ce que amoon nga décret dafa amoon annonce bu ñu ne dañuy de annonce annonce annonce du décision annonce seen yéen lii la. mais loolu dafa am lu ko làmboo bu ko autorité bi waxee mooy ñoom ñëpp ñu ngi ci nekk di wër di def ay jéego ndar xëyul sotti ndànk-ndànk la seen mébét loolu la te ñoom ñi ngi ci tànk yooyu bu jotee rek dana yomb mais amul woon benn këyit bu ñu xaatim ne woon lii tel app lii lii dañ koy def dix ans amul woon mais dañu annoncé yéene bi mi en charge des Sénégalais le secrétaire d'État mu waxoon ko yéene bi te autorité yi ñu ngi ciy def ay jéego te yaakaar naa ni loolu yàggatul mais ñii nii bi ma laajee policiers yi liñ ma wax mooy non yii cinq yi la ba tey cinq yi ba tey amaguñ ci woon benn confirmation. ok nga fa madame Korian ci diir boo xam ne bu yàgg la ñu nommé beneen ambassade gisuñu ko mu ñëw def liggéeyam ba tax na sax ay sénégalais yu bari wax nañu ci. yi bind nañu ñaxtu nañu ngir na ñëw def liggéeyam ginnaaw boobu yow yaa fa taxawoon taxawaayu ambassade. non man taxawuma taxawaayu ambassadeur non taxawuma taxawaayu ambassadeur parce que ambassadeur bu fa nekkul am na un chargé d'affaires bu fa nekkoon ba deuxième chargé d'affaires ñëw ba ambassadeur bi muy ñëw jël lenge yi mu moom di doxal la mu war a doxal mais sénégalais yi euh, non man lañu xam parce que maa féetewoo ci côté sénégalais yi. mais des fois nañuy waxante dëgg gaa yi nañuy juste bu doon seen liggéey dafa tardé wala ñu am lu tardé seen sauf-conduit tardé seen carte consulaire tardé seen i déclaration tardé ñu ne waaw mais des fois dañuy wax nañu waxante dëgg ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañuy wax ba wax la nga xamante ne seen yoon nekku ci ambassadeur buy ñëw buy ñëw appam bu jotee day ñëw parce que président du la nommé ba pare nga toog foofu day ñëw ba mu jotee dafa ñëw commencé def liggéeyam nañ ko ko santee macha allah donc sénégalais yi ne non parce que ambassadeur nekk fii dara fekk liggéey bi wax leen ma rek góor a lan moo lan moo doon kii xam naa ni benn sekkeen rek moo xiif fële benn sekkeen rek bu mel ni yow moo xiifee fële rek comme comment commencé wax mais nañuy waxante dëgg nag ñun ñëpp ay sénégalais lañ dañu war a xam des fois nag fan lañu lan la ñu war a wax ak fan lañ ko war a yemale. ambassadeur bu ñëwee day continuer liggéeyam moom moo ñu yebal fii nii ambassadeur ba fi nekkoon def lañ liñ ko sant mu dem mais ambassadeur bu ñëwagul tamit administration du taxaw administration bi day continuer da ngaa mës a gis ñu ne ambassadeur bi nekku fi am na këyit yu ñu fay teg muy xaar signature ndax am na no dama lay laaj rek xam nga yow yaay laajte mais man tam dama lay laaj non non non yow yaa ngi fekk sénégalais yi yéen yéen a ngi fekk sénégalais yi bu doon euh, ndaaj seen dafa yónnee këyit ñu ne duñ ko signé dañuy xaar ambassadeur wala Alioune Badara Diagne dafa yónnee këyit ñu ne duñ ko signé dañuy xaar këyit di ko yëg. mais administration day continuer administration bi du taxaw tout le temps li ñu war a def dañ koy def. ñu lay gërëm baax di maa ngi leen di gërëm di leen sant ah kàddu yi nag lu fi jub ci yàlla la ambassadeur wax loo na ma ne ma naa wax ci tey ak dal waaye des fois peut-être esprit jeune beeg esprit booy bi mooy waxee noonu di kii lu fi jub ca yàlla la lu fi dëng. ca man jàbbu xeebu la maa ngi leen di jéggalu yéen ñëpp di leen jaajëfal